maa ngi di leen won ni eh, bruit boobu ñuy wax ah ci HLM eh, Las Palmas léegi sotti naa fi ndox ci kanam da ngeen dégg bruit ndox bi parce que tiwo yooyu nag ñoo ëpp yi te moo ëpp écho mais pour won leen rek ni ndox mun na def ay bruit yoo xam ni dafay raglu léegi dindi leen chiffon bi sotti na ndox ñoo ngi observé voilà ñoo ngi observé bu ndox mi demee contre le vent su ko defee ngeen mën a dégg bruit bi nga xam ni ndox mën na ko def voilà ndox maa ngi jeex ndox mi ngi jeex si bu jeexee nag ba ngelaw topp si mu di foos ci suuf ngeen di dégg rumeur. mi ngi noonu ñoo ko déggandu ma ngay dem ngelaw mooy topp ci gannaawam te tuyau yooyu ay cent cinquante tonnes yi di ay cent dix donc bruit bi day ëpp lii lépp rek pour wane ni foofu noonu ay tiwu euh, yoo xam ne ñooy def yëngu mu nekk foofu ñuy wax li jaan moo fa nekk mais jaan fa